seen jàmm la coupe d'Afrique des nations ci lu yomb Sénégal da ngeen bëggoon dem Côte d'Ivoire année coupe d'Afrique des nations supporter sunu gaynde yi xibar bi yéen ko mom. Africa Fly Tour di keur gi yobou kep ku beug dem dem année coupe d'Afrique des nations di len jox billet d'avion aller-retour hébergement ticket stade transport interurbain transport bus stade encadrement médical maillot équipe nationale restauration demi-pension moo xam ngay particulier wala entreprise ñu bëgg que ji CAN Côte d'Ivoire bi. D'une ambiance avec les moments forts en live et en direct am pour 10 jours 21 et un jours wala trente jours au Coupe d'Afrique des Nations bi Yen dans le raw le nombre de places est limité rax si avons 20% sur vingt pour cent suñu clients Yen de bindu si nous pack silver am nous pack gold am nous pack diamond Africa Fly Tour Nous ngi immeuble promo import ci avenue Cheikh en face école Manguier 2 ou en 78 652 51 51 ou le 77 027 22 22 ou le 33 858 77 52 Dim Cetani Coupe d'Afrique des Nations ca Côte d'Ivoire avec Africa Fly Tour. jaa ngeen jëf xale yi xol sedd dina daal waaw góor yéen kontaan yéen waa Sénégal ni ngeen kontaanee ci Optique Vision Plus Sénégal noonu la Optique Vision Plus Sénégal béggee ci yéen ngir ànd ak ay kiliyaanam jeexal at mi ci jàmm dugg ci 2024 ci bànneex moo waral seen boutique de lunettes Optique Vision Plus Sénégal indi laat leen promotion bu mag a mag ñu naan ko promo fin d'année arrivage bu qui a une nouvelle collection de lunettes des lunettes de marque des lunettes haut de gamme ay lunettes de classe raffinée, raffiné cadre de lunettes du style design bu a ay lunettes de soleil des grandes marques Le poule Optic Vision plus Sénégal indigirienne avec réduction bu 25%, ci 50%. ba ci 50% fin d'année la nuit boutique Optique Vision plus Sénégal bu Fekokofa. Mouichi Dakar di ci Mbour Thiès Touba Saint-Louis ak ci paire de lunettes Boudien de ci boutique Optic Optique Vision plus Sénégal ñu may la et tu vois le produit pour nettoyer sa Optique Vision Plus Sénégal 33 821 54 57 77 479 63 38 Optique Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous jërëjëfati yéen waa kër Serigne Touba Fall et frère nekk fii ci marché HLM ci raay bi ah mbokk yi lépp loo xam ne da gaamu vite fait yegg si na gaam bi nag mët na sëkk manquétul dara fi ñu toll gaamu vite fait am na brosse à dents vite fait am na pâte dentifrice vite fait am na crème main et pied pour yéen salon yi am na crème main am crème pied pour yéen jigéen yi ak salon yi am nañu tamit shampoing ak démêlant vite fait pour yéen jigéen yi waaw waaw salon yi nag ñoo koy xëccoo salon

bu ko defee nag nga xam ni sa jëkkër day kontaan ci yow am nañu tamit savon king aloe vera waaye am nañu crème épilatoire vite fait waa kër Serigne Touba Fall et frère marché HLM si raay bi 77 555 11 11 wala 76 577 06 63 wala 33 824 55 77 vite fait la gamme est complète. Optique Vision Plus Sénégal établissement Waker Serigne Touba Africa Fly Tour savon créole AC CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñoo di émission

tàmbale ak Infinix damay wax ne képp koo xamante ne ji da nga bëgg téléphone Infinix soit da nekk revendeur téléphone wala nga soxla ci information wala nga bëgg a jëflante ak waa Infinix woo leen ci 77 881 26 96 77 881 26 96 Infinix indi ay téléphones yu baax te rafet téléphone yu moderne téléphone yu garanti téléphone yoo xamante ne ji euh, bu gën a baax sa morom nga ne bii la dañoo indi woon Infinix Note 30 Euh, léegi nag ñu indi beneen téléphone boo xamante ne ji ñu ngi ko tuddee Euh, Infinix Hot 40i nga xam Smart 7 HD là wala Smart 8 HD Faut dem ci réew revendre revendeur téléphone boo gis am na di téléphone Infinix boo de Orange dina la may 10 Go de connexion bu gamme de téléphone Il ñu wax ci Infinix am na yeneen yoo xam ne mi ngi ci gàmm bi numéro de téléphone il y ci mën a amee information jox naa leen ko euh, sànq muy numéro téléphone bii di 77 881 26 96 partenaire beneen boo xam ne moom it day and ak ñun ci xalaas waaye nag jàppale waa réew mi bu baax a baax savon créole nga xam dafa am ci carotte am ci miel am ci citron savon créole moy saabu bi ay ci tàggale la ak peau grasse saabu bi ay ci la ak ay pores dilatés tache noire ba ci ay boutons acné mu un savon goma un savon xam bu duggé ci kër xalé ak ndaw ak jigen ku ne ko utiliser lolu moy savon créole ku ci bëgg information ci 77 516 93 49 wala 33 822 99 17 comptoir commercial de plomberie du Sénégal DCCPS. CCPS la satisfaction au préalable loolu la ñu woote ci lañ leen ñëpp xam CCPS ubbi showroom bu mag feulé ci Touba rond point héliport ko xamné da nga soxla ay matériel sanitaire ay matériel tuyauterie ay chaises anglaises suspendues ay armoire lavabo ay baignoire cabine hydromassage ay chauffe-eau électrique wala solaire matériel irrigation ay motopompe loo ci soxla rek euh, bo démé fofu ci showroom bi nekk ci Touba rond point héliport di nga ko fa mëna am 77 529 48 12 le 77 881 31 18 fi ci CCPS Mingifi euh, Sacré Cœur veden di ngeen fa fekk showroom bu mag ngeen dem rue Valmy CCPS ma nga fa ngeen dem rue Tolbi ak euh, comptoir commercial de plomberie du Sénégal ma nga fa ngeen dem rue Floris comptoir commercial de plomberie du Sénégal ma nga fa ñeneen a ngi ñoo xamne partout et pour tous la nuit, taxna fait ñi ngi fepp ci réew mi Optique Vision plus Sénégal mën ngeen leena a fekk ci Dakar ci Saint-Louis ci Louga ci Touba ci Mbour ak fi nga xamantene ji Thiès Optique Vision plus Sénégal que ci promotion 50 pour cent ci lunettes yi ci prix lunettes yi ak ci cadre lunettes yi di wax c'est disponible partout boutique carte vision plus Sénégal bu ngeen dem ci réew mi mën ko am lundi ba vendredi dañuy ubbi 9h ba 17h ci boutique Optivision plus Sénégal samedi ñuy ubbi 9h ba 14h pour mën permettre nit ñi ñu am seen ay lunettes fu nit nekk nag soxla ci information ci promotion bi ci marchandise ci accessoire ci article yi am ci boutique Optivision plus Sénégal mën ngeen leen a eh, ci 33 800. 21 54 57 33 821 54 57 Nous sommes Aba ak partenaire bo xamné Sénégal yi yëpp leen di gëreum établissement wa keur Serigne Touba Fall et frère Nous ñi indi gam bi ñu vite fait euh, vite fait gamle la bu bax lool ci bien-être vite fait gamme la bu complète vite fait gamle la boo période Euh, nit ñi dañ ci gis seen bopp jamono ji nga xamante ne ci kon dañuy dugg ci sedd poussière bi di jug ñu indi mouchoir de poche vite fait am na mouchoir de table vite fait am nañu crème wala crème puis am lipolèvre bu efficace ngir euh, kenn bañ am ay tuñ yu weex ci jamonoy sedd bi sedd it yax yi day faral di metti nit ñi di sonn frotter vite fait moo ci efficace moo ci baax 77 555 11 11 ou 77 806 15 19 moi numéro de téléphone pour établissement waa kër Serigne Touba Fall et frères yi am di gamme vite fait mu di gamme xam fu ngeen dem ci réew mi mën ngeen ko am sous région bi sax gaamu vite fait bi ma ñii ñooy partenaires ñu gunge ci xalaas ñu leen di jaajëfal bu baax a baax dellu également santaat waa Sénégal mhm. di wax rek ne euh, fi ñuy dajeek ñoom foofu la muy 77 150 17 17 ku ci woote am xalaas mu di xew-xewu jamono boo bëgg séddoo ak ñun 77 150 17 17 wala 76 177 17 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci ci confiance bi ñu tàmbale xalaas yi. lépp loo fa envoyé ci xalaas rek dina yegg ci ñun. mi ngi noonu. am na solo nga ni xalaas bi njëkk lu mu wax. waa kii day Aba. li tax ñu indi ko mooy dafa am luñ ci mën a jàngat. Mhm. xam nga li ñuy woowee tapage nocturne. Mhm. ñu guddi. waaw dafa bari nag nu muy amee. Mhm. ñii dañoo dëkk Cambérène dëkk kër goo xamante ne ji dend kër goo xamante ne ji guddeeg bëccëg ñu ngi ci xumbaay. xumbaay mooy waa ji ay ay buruweeg ay feet ak ay anniversaire ak moom waa ji dina ko wax léegi nag sonn nañ déglul d'abord ñu ñëw. Assalamualaikum, waalaikumsalam. xalaas waaw man dama fi amoon fii benn lu ma bëggoon muy si eh, ginnaaw esat kër ayda sering Saaliw mais ñun am jàmm mënuñoo am salam. ndax moom bur yu guddi bur yu bëccëg du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg fi manset. toll nii démb nelawuñu ba manset. set fan yii yëpp du ñu nelaw ba asamaan set gis ngeen ni dégg bur bi suba dañu wara xey xëy liggéey duñu noppalu duñu nelaw li ax deug deug deug deug deug la solo non nak ba ci karamu yalla man won li dina ko dénoncé ba ñepp dégg ko ku ci man dara nanu ci dimbali solo non trop ay anniversaire la ay yu kenn xamul yu ñàkk fayda chaque jour nga nasi di empêcher nit ñi te pourtant kër gi mu takkalool di seen yaay gaño ak léegi matul semaine fii lay nekk di mbumbaay chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour vraiment moom ax gënu kaa rëy quoi dimbali leen ma si ngir yàlla ñu jàllale li Sénégal yëpp dégg. bala ñuy sori leeral ne xam nga daf leen a accusé mhm. fexe nañu ba am numéro ñoo ñuy accusé mhm. ba ñuy woote ba léegi même li waa ji wax sax yónnee nañ ko ci numéro bi ñu jox mhm. mais nous amuñu benn réaction donc euh, mi ngi noonu mu indi rek coowal li ñuy wax tapage nocturne xam nga ci biir yi waxam abaa yaa ngi koy dégg mu ne euh, dañuy tëdd war a xëy liggéey. Mm-hmm. du mën a nelaw. Mm-hmm. xam nga xam nga loolu àq la. dëgg la dañ dafay dem ba ci sax léeg-léeg mbedd yi da ngay romb foo xamante ni da ngay fekk ñu teg fa bâche bu rëy. te yow mu nekkoon sa yoon. fi nga war a jaar waaw mu nekkoon sa yoon mm-hmm. pour dem liggéey. benn problème la. léeg-léeg nga gis ci koo xamante ne ji malaat la yor. war a dem ak moom léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ne dafa toll diggante ba soxlaa dem hôpital yooyu yëpp ay mbir la yu ñuy def yoo xamante ne ji duñ ci duñ ci bàyyi xel mais bi gën a doy waar nag mooy aba wàcc sonn war a noppalu wala nga teel a tëdd pour war a teel a yeew am lu la koy yàqal àq boobu moom aba lu jara moytu la. mais moom lan la doon kii li anniversaire la woon wala lan la woon. ne moom daal précisé wul nee na daal noonu la ñu noonu la ñu dëkkee ak ñoom. bëggoon nañ leen a dégg nag moo tax lu ne def nañu ko pour jot leen ngir ñoom it ñu wax parce que bu dul dara sax euh, xam nga am na yenn yoo xamante ne bu ko nit def day am autorisation. Mhm. mais gëw ma ne lii moom autorisation mi ngi ci. ou bien mu dem ci waa koñ bi wax leen bis sàngam dinaa xew leen nangam ba waa koñ bi yëpp. waa koñ bi voilà loolu dafay baax. mais xam mhm, nga mhm, daal day na waar daal. Euh, xam nga ban xalaas laa lay indil. ban xalaas ngay indi bu doy waar dafa dafa am benn taalibe dongo daara boo xam ne dafa dawee ci daara ji. daw waaw. daje ak benn waay waa ji ne ko dama lay yóbbu Kolda wutal la liggéey ñuy dem bi ñu demee guddi fekk leen ci garage ba ñu fanaan fa fi ñu tëdd gars yi di yuuxoo sàcc fekk am na benn sàcc bu ñu doon dàq. Mm-hmm. sàcc bi dugg ci garage bi ñu di ko topp ba fekk leen fa ñoom fa ñuy nelaw ñu jàpp na ci sàcc yi lañ bokk. jël leen yóbbu police ñu duma leen fa dóor yu metti yoo xamante ne ji. Hmm? booy bi bi mu génnee benn femme moo ko for yóbbu ko këram waa ji ko ne woon dama la yóbbu Kolda pour wutale liggéey di ko wër di ko wër di ko wër ba fekk kër femme bi ne da ko yóbbu bi femme bi laajee kii fu mu jëm ak lu tax nga koy yóbbu taalibe bi ne ko man xaw ma ko dañoo daje fi rek mën daf muy wutal liggéey man donga daara laa damaa dawee suñ daara mu ne waa ji lu tax nga bëgg ko mu ne ko kii jël avance ci moom Hmm. léegi nag looloo jaaxal femme bi. mais damaa jël avance mooy. loolu foofu la yem damaa dugal xaalis ci moom ba pare léegi nag looloo jaaxal femme bi gis nga bi femme bi ne damay woo police ci la waa départ. kon da koo jaay. jaay na ko déglu. affaire bi dafa doy waar ndax suma benn mbokku yor daara. am ab ndongoom boo xam ne dafa daw. donc bi mu dawee. toog na ay fan ñu di ko wër mënuñ koo gis. ndekete am na ku ko jël ne ko dama la yóbbu Kolda wutal la liggéey xale bi daal di nangu ne ko dama lutoo liggéey pour nga am xaalis xale bi daal di nangu ànd ak moom mu paasal ko diggante ndar Kaolack lañ wàcc jëlaat oto wàcc Farafeñe ba ñëwee Farafeñe guddi mu guddi fekk oto Kolda yi jeex ñu war a fanaan bu fajar pour ñu war a jël premier car war a dem Kolda bi ñëwee ko bi ñëwee Farafeñe ñu fanaan wutut fu ñu fanaan amuñu ko ñu fanaan ci garage bi bi ñu fanaanee ci garage bi mok dong bi ñu and de mu ne ko dem lewte liggey Kolda ñu nañ ci garage bi ñom ñaar ci guddi gi am ay sàcc yu ñu ñu dugg ci bir garage bi ñu gis leen japp leen yaakaar na ñok sàcc yi ñoo and mom waaji and ak xalé bi ñu leen japp yobul leen police dañ leen door door door door door door door dóor ba ñuy bëgg de ba dong bi ci bopam bimu joge jógee mën dox ndax door yu metti bimu mu suba xamna mu sonu jaaxle génn dajeeg benn jigéen bu baax mu laaj ko loolu la dal mu ne ko dama sonn ndax ay sàcc lañ jàppoon biig ñu yaakaar ne ñun ca lañ bokk ñu laaj ñu ñu wax liñ xam gëmuñ ko ñu dóor ñu ba ñuy bëgg a dee nii ndaw si yërëm ko yóbbu ko këram sang ko ba mu set jox ko ay yére mu sol ndax xelaat na moom yor na njabootam ndax ñu ci ànd bi mu sang xale bi yore ko sim tuuti waa ñi ma àndaloon yegg si ñu ne ko xale bi laa jël si mu ne ko déet xale bi loo koy doye xale bi lu ngeen bokk fam bi for xale bi boko wax de lo koy laaj de ne ko ya xale bi lu ngeen bok mu ne ko ñu dara mu laaj xale bi ki bëgg la yobbu yak mom lu ngeen bokk xale bi ne ko ñu dara mu ne ko ah, lu nga bokku yobbu mu ne ko ah, parce que xale bi dama lek ci mom avance dama féré ci mom xaaliss dama ko wara a ndaw si ne ko lan yow xara bo police rek waji dapa daw bàyyi fa xale ba xolo lolu parce que nit ñu bari xale yu bari ñu ngi daw seen dara wala dong yu bari wala xale yu bari génn rek ñu yóbbu leen ñu ne dañoo réer dañoo réer nit ñi leen di jël di leen yóbbu di leen sacrifier te loolu war nañ ci bàyyi xel de ñi nekk ci garage war nañu bàyyi xel nit ku ñëw ànd ak xale war nga ko laaj xale bi nga yor sa lan la ak foo jëm ak moom wala nga laaj xale bi ki nga àndal sa lan la fan la jëm ak yow parce que ñu bari ñu ngi réer xale yu bari ñu ngi dem seen yoon kenn xamul fuñ ne lu mel la parce que dañ leen yóbbu di leen sacrifier xale boobu dongo boobu yàllaa ko defar sutura fam bi ko këram ne ko togol fi bul génn dal di ko laaj mu ko man talibé la damay jang ndar la nek dama dawon ki dama ak mom rek mu yobuma daf def may ne damay wutal liggéey mu ko ah mu ko waaw mu ne ko sëriñ nu mu mu wax ko ko mu ko yor nga numéro téléphone mu wax ko mu ko waaw mu wax ko numéro téléphone mu wo sëriñ bi ne ko da nga amoon am ndonga bu réer mu ko waaw mu ko mu mu wax ko turam mu ko ngi fi de ci man gambi mu ngi tuddu nanga waye nak mu ngi ci jamm ngeen ko mënee jël si ngeen jël si ko waaye mi ngi ci loxo yu wóor mi ngi ci jàmm bi mu demee jëli taalib bi ci la ko faam bi nettali loolu yëpp ak li ko donga bi wax yëpp xam loolu doy na waar. xalaas. amul suite nag ndax poroblème bi mooy femme bi jot a dem polis te gisaatuñu waaja léegi ala bi mu woo nañu sëriñ bi ba sëriñ bi jël si ko ba dellu na. mais kon kii njaay bu dee man li nga xam ne moo nekk sama xel mooy kii dañ ko doon jaay. ah waaw waaw déggoo fi mu ko fekk gis na ko mu daw mun ne ko dama la yóbbu Kolda wutal la liggéey déjà mënoon nañu sax bañ a dem Kolda ñaareel ba mooy xëy na booy bi bi mu dawee dóor nañ ko ci sonn na ci waaye loolu moo ko sauvé. Mhm. ndax tey bu ñu amoon oto pour dem Kolda. mën na ko sànki wala ñu dem fam fa mu bëgg a dem. Mhm. kon kay kenn waxatu ko est-ce que bi mooy première fois waa ji def lu ne mel. loolu laaj la beneen bi ci topp mooy bu jëlee ay xale yóbbu leen fan la leen. fan la leen yóbbu. ñetteelu laaj bi mooy ñu mën a def ba jàpp waa ji comme tànte na ko wala comme def na ko rëcc euh, rëcc na xam naa ne dina ko jéem a def. mais Ndiaye nag xam naa ne moom di ma ko xam naa moom lii moom dama koy baal parce que sama xel la ne man dama gis ni fee yi di am nii. Mhm. ay ay ay approche yu ay campagne élection rek ngay dégg genre fee yu mel nii. <laughs> jaay diw sàcc ah. xale yóbbu xale yooyu ay ay maanaam bu campagne di waaj a ñëw wala élection ak quatre quatre bu noir c'est mooy bi enlevé nit ñi waaw dégg ko boobu non non boobu mu egseegu bu xam naa ni egseegu quatre quatre bu noir bi benn quatre quatre bu ñuul mais c'est grave ah, doy na waar trop tombé waral ay gaf ah mais c'est grave démb abaa ma nga damaa demoon benn xew euh, ginnaaw Saalum ci la ma bi ma demee ba ci xew bi ci la ma ñaari waay toppee biñ ma toppee foofu ne ma yow mii est-ce que amoo lu lay daaneel mu ne ko am naa lu may daaneel mu ne ko am naa lu may daaneel léegi mu ne ma dinaa am ko mu la booleel mu faj la ne ko man bala may def dara damay bàyyi bi ñibbi Tuubaa ba tàgg sama yaay bu pare léegi mu waxtaanee sama yaay bu pare mu ne ma jox ko waa ji woote ma jox ko sama yaay woon ko ak yarute daal mu ko woowee téléphone mu ne ko waa baax na damaa bëgg mu ñëw fii dëkk bi ñu wax mu ñëw Kaolack Eh, léegi foo mu ñëw Kaolack dinaa ko envoyé dinaa ko envoyé xaalis mu ñëw mu passé ñëw léegi ma demee ba kaw lax nag sama yaay bàyyi ma ma ma ma ñëwee Kaolack suuru vendredi la déplacé woon foofu léegi mu bi ma yónnee loolu nag ci laay xaw ma ne ku xaw a taayeel am benn waay bu fa ñëw na ma yow mii dangay taayeel rek boo sawru ci yoon bi te ngaa toog. sama yaay ne ma boo sa wut yoon wi te ngaa toog ma ne ko yaay sama yaram bi damay day diis rek mim xel danaan ma demal mim xel nan ma toogal ma ne naa toog ba ci yàgg mu ne ma tey ba ci yàgg mu ne dañ ne ma da nga jug dem ci laa ne bëri nag mu ne damaa def dara ci laa ne nag daal di jug dem ci laa ci laa jug dem ba ma demee ba àgg nag waa ji moo ma jël si yóbbu ci sëriñ boobu ba ma yóbbee ci sëriñ bi nag ay mbokk ma nga fa nag mu yóbbu ma ci sëriñ bi ma fanaan foofu waaye commencé defee affaire man ne ko man yii indiw ma fi yow sëriñ nga ma waxoon bu ay ay caaxaan moom dama cey nekku bi ma boole sëriñ bi nag bu jox ma ay ay ay garab ak yi may suulu bi ma ko suul bi ma sangoo garab yi ma ko suuloo depuis bi ma sangoo garab yi euh, suba googu damay topp di nelaw di nelaw rek di nelaw rek laay def ginnaaw bi sama yaay woo ma téléphone ci laa tiitee ci nelaw mun ma yow lan ngay nelaw ma ne ko depuis yaay bi ma sangoo ba tey damaa jaaxle damay nelaw rek di nelaw ba deux heures di deux heures ci laa topp di nelaw rek ma yeewu tiit ma ne la am lu jógee si man ci laa dem ci toilette bi léegi nag ginnaaw si guddi googu waa ji ñëw am na jox na ma fi fruit jox na ma fi lu mel ne tàngal jox ma fi banaana loolu lépp lekk naa ko wóolu rek amoon ñoom si xam nga rek mu jox ma ko ci laa tàggaleeku sama laa léegi bi ma ñibbisee nag Tuubaa man xaw ma ëmb. boobu mu ngi may soog a dal xaw ma lan mooy ëmb léegi ci laa ànd ak benn waay mu seet si woo ma ànd ak moom ma yor kayit bi mi ànd ak sama yaay ma ko yaay man dama man daal bi mu ñëwee ba tey damay wàcc rek di taayal ci buru sama yaay xamul ci dara léegi ci lañ dem ci benn clinique bi nekk foofu bi ñu demee foofu seen ñu ne dama ëmb ma ko waxee nag ma tiit woo sama yaay ci guddi googu mu ñëw ak benn waay bu ma fi yóbbu woon ci laa ñëw nag. mooy nga dama ëmb xalaas dégg de luy comprendre nga ni ëmb bi ñëwee nee na dafa demoon ci benn xew mu mhm. mhm. am kum fa dajal xaritam bu doon sëyi mu bokk ci ñi demoon ci délégation bi maanaam ci ciit gi am kum fa dajal mu ne ko daam lu nekk ci yow dama lay boole nit mu ñaanal mun ma ne wax ak yaayam xale bi tàggoo ba ñu dem ki ngay dégg nii vingt et un la am. kii wax ni waaw. ba ñu demee nee nañu ca lañ ko def liñ koy def jox ko loo xam ne moo ko nelawloo. ba ëmbal ko ñu yegg ci kawam bi mu ñibbisee ci la yëgee dafa ëmb. léegi nañu déglu li ci topp nag. léegi ci laa topp di waaw woo waa ji waa ji lànk ñoom ñaar na ñoo ko séq ndax man xaw ma kan moo ma ko ci def waaye ñoom ñaar daal ñoo ko séq xaw ma kan moom ma ko ci def mënumaa wax kii moo ma ci def léegi nag ci lan ma woo ma nekk ak sama ëmb sama mitit ma wax leen ko ku ne bañ a ko nangu kii naan du man kii naan du man ma jaaxle ci torop ma jaaxle si torop torop torop fi mu toll nii damaa jaaxle torop sama yaay dafa jaaxle maa ngi yor sama doom ma ànd ak sama ëmb du ordonnance du dara lu ma jàppalee samay mag ñoo ma taxawu ordonnance yëpp ñoo ci taxaw samay mag amuñu doole kenn ki safooru la day daan doole yi ko daanu kenn gi maçon la dañuy da dañuy taqale rek man nag ma sonn jaaxle xale bi yàlla def ma am jàmm ma ma am jàmm bi ma amee doom nag du ordonnance dara ma jaaxle amul lu ma ngéntee amul lu ma ngéntelee sama doom ginnaaw yàlla nag samay mag ñoo ma taxawu ñoo taqale rek ngénteel ma sama doom xale bi nag góor la ñu tuddee ko sama mag bu góor moo ko tuddee xaritam waaw ma jaaxle te xale bi li ma ci jaaxal bi mu juddoo fi muy sawee dafa xaw am problème dafa xaw am problème dafa mel ne luy wëlbatiku te foofu nag dama see xaw a jaaxle ndax boo ko yaree nii bu màggee day sawee ci suy saw fi muy sawee ci suus la te bu ma ko ci yaree nii du baax te awma ko ma ci dimbali aw ma doole yàlla ñi am am naay mbokk waaye jàppaleetum kenn aw ma doole ma bëgg ko ma ci jàppale te yàlla tax waa ji nag bi ma defee lool bi ma amee doom ba tey lu ne nii ma woo ma téléphone ci ci ëmb bi Bima am be fim la ni woo ma téléphone naan ma ay ñaata mo wa nga tollat fo tollat bima amé du mëna ma xalé bi nan la tudd ak mané ko lutax tax ma la koy wax mu naa ma lu tax ma wax ni ma tudd ginnaw bi nag mu jël mu jël wax waaji mune ma euh mune ma man mune ma lu fi waroon am la ta amna ba paré man ko kon xam nga ne yow yaa ko def lolu muy mu wax man dal lima ma ñaan ta yalla tax ñi dimbali ma ta yalla rek tax parce que man sonna ya def nañ ma lii lànk maa ngi sama doom sama métit ma sonn jaaxle bëgg ku ma jàppale te yàlla rekk tax waaw man nag dama ko bàyyi yàlla bëgg ku ma jàppale te yàlla rekk tax moo tax waaw loolu kese moo tax ne woon naa la dinga nga dégg xew-xewu jamono bu graw jaajëfal bu baax Pape Balla aussi parce que moo Pape Balla Gueye RFM mm-hmm. Touba ak Mbàkke moo tax moo tax ñu jot ci élément bi bi ma ko laajee nag parce que déggante naa ak moom après laaj ko ndax euh, dem nga porter plainte mu ne déedéet ndax dañ ko wax na ko bàyyi ak yàlla. Hmm? waaw euh, xamul ci ñaar ñooñu kan moo ci jur doom ji muy ku fa yóbbu woon ak ki ne sëriñ la da koy ñaanal xamul kan moo ko ci jur muy benn problème euh, laaj naa koy noo ko santale mu ne santu nijaayam la ko jox dégg nga ci biir yoo xam nee na magam bu góor moo ko tuddee xaritam mais problème fondamentale bi tax mu ñëw fii mhm. bu weesoo di dénoncer liñ ko def parce que ñaaw na mais dafa bëgg également ñu jàppale ko ndax doom ji mu ci am ni mu ko waxee dafa ndaale feebar boo xam ne day ragal su ko màggalee mu metti ci moom mhm. donc mi ngi noonu aba léegi nag jaay euh, fi ñu toll nii ñii ñaar mhm. dañ leen a war a bàyyi ñu continuer ci li ñu nekk nii je pense que yon bu ñu bu ñu war nañ ko jël nyom amé main ñu jël ko ak sen ay propre euh, responsabilité dem lijjanti ki parce que ñi ci yon bi ñu nekk nii boo demee kii moo fi wax mais am na keneen ak keneen ño xamni aw nañ té te ñu wax. mais lu leer nga wax sax benen bi ci top moy bu ci yon jugoon bu ci yoon jugoon xam nga mbokk yi mom dañ ko nëpp nëppal xeyna na dañuy bañ coow li siiw. wala dañu ragalé yéeg di wàcc wala xamu yoon ñu wara jaar mais lu mu ci mën de doon tay bu ci yoon jugoon muy justice lijjantil ko boppam ñoom ñaar ñooñu dinañu wax kan moo ci ëmbal xale bi dinañu xam kan moo jur xale bi. ba pare dinañu wax ak kan ak kan lañ ko def. ak kan ak kan ko def bu dul loolu danañ ko defaat ñeneen te loolu xale bu ndaw 21 ans nga def ko li nga koy def. ñu yàq àddunaam kay ngay wax. bàyyi ko problème bàyyi ko doom joo xam ne tey. ba feebar au delà de bi tey même xale bi bu ko dara jotul woon. imaginel xale bi màgg ñu koy raconté di ko nettali ni mu juddoo wala muy laaj papam ñu koy luñ koy wax lan lañ koy wax. gis nga abaa am na bari na ay borom xam-xam yu saay saay. ñan nag gis nga Ndiaye nit du am lu ko metti ñu koy waxaat leneen di ko ci yokkal métit mais Ndiaye xale jigéen ñi war nañu ànd ak seen xel nag quand même war nañu conscient ci yu bari yu xam ni dañ koy def njaay ana yow ana man kaa ñu dem ci sëriñ Ndiaye àdduna du sëriñ ñu ko yor. Mm-hmm. feebar yàlla mi la ko teg moom lay neex mu teggi wala hôpital yaa ngi fi. Mm-hmm. wala booy dem ci sëriñ àndal ak sa yaay wala àndal ak ku la doy ngeen ànd dem ci sëriñ yéen ñaar ñëpp mun ñu leen ndax am nga frère am nga koo xam di lay doy nga ànd mais ana yow ana man nañ dem ci sëriñ nga jël ñu jaga jaga dee yóbbu ci sëriñ sa avenir mooy yàqu après looy rëccu rek nga ci am. Ah, ak problème yu looy rëccu rek nga ci am. ba subaa jàmm. ayca jërëjëf. Optique Vision Plus Sénégal